asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah sëñ Ahmed Cissé dafa dëgg yàlla xam nga Sénégal moom ñoo ñenn ñi baal ñi xam ne seen njàng daal dañoo sori dañoo gaaw a yéemu ci borom koo xam ne ni kii borom xam-xam la dañ cee gaaw a nit ñi daanaka ñetti àlloo la ñuy jàng ñeent rek bi ñu waxee bi ci rek ñu ne kii borom xam la loolu daa yomb lool sax de waaw donte nag xëy na mën na xam ay aaya ak jàng waaye lii moom boo ko gëstoo ci bopp bu war a xam moom dara moom da nga xam ne kii wax dëgg yàlla bopp bi am ndox dajee néewul am ndox waaw Alxuraan moom yaakaar naa daa béywul dara te loo xam ne fi mu doon a atte la dañ koy indiwaat ñu atte ko waaw ay naan da daganoon daganoon naag boo leen koy yëpp fi mu doon ba mu demee ba xam ne loraange dong lay jural doomu aadama ci ñëpp nag te nga xam ne amutug wér-gu-yaram nga xam mën la koo yóbbu te ab jullit nag ak wéram ak wér daa baax moom lool te lislaam da koo fonk man nag dégg naa mu ne Boy Fall xaw ma nag moom euh, ci kii ndax ñi man di ma leen topp bu fekkee suñ oustaz Modou Fall lay tontu mi nekk ci TFM euh, ci waxam jooju moo xoon naan ab chrétien ab chrétien war koo mën a ñaanal daal njëggul suñu borom loolu ndax dëgg yàlla wax yàlla bu fekkee xaw ma nag ba moom la loolu dese naa ko xam waaye bu fekkee li ma ne moom ca lay tontu moom wax dëgg yàlla moom loolu jërul muy xuloo kenn ko ne ci adduna bi nu yàlla direct rek da bàyyi jaami ñu ne ci si seen seen jàmm daal waaw na ko aaya bi indee ñoom ñëpp jëfandikoo ko wax yàlla jàngkat yëpp xam ko walaatu sala di min maat abdulaa ta xalaa xabri yi wax leer nañ la loo xam ne mi ngi ci alxuraan ñëpp mën a sa koo jàng te ci xel nañ bàyyi seen caaxaan yi te bàyyi diine ji ñuy fawee waaye nag Sénégal nag ñoo gaaw yéemu ci borom ñoo gaaw yéemu ci nit daal jékki-jékki tëj nañ kii borom xamal fekk xamul dara wax dëgg yàlla ndax ñàkk xam dara moom mënut a weesu ak xel mu fatt mënut a weesu nga naan yàlla boobu ba mu ko wax da doon changé rek nangam changé seeni wax yi booy taamu yi ñu jël daal li ma démb rek nañ jaay ba léegi jalaat nekk nañ ko jaay ku am prix waxal. xam nga lan moo am itam Sénégal gis nga journaliste yi soxlawuñu sax kuy wax dëgg journaliste yi maanaam liñ soxla mooy koo xam ne buñ leeree na buñ xëyee dem ci saalam bi ci bureau mu wax toj-toj. maanaam dafa mel ni kook la ñuy wër dafa mel ni boo xoolee ak histoire tontu wante dafa mel ni moom la journaliste di xëy di wër ci nit ki maanaam même bu ñu la dalalee sax dañ la cukk ci koo xam ne au lieu nga wax ñi nga nekk ci wax lu li ñuy jëriñ ba nga aw yoon bi ñu tourné la ne la ah yow diine la yow diw nee na la nangam maanaam tourné la pour nga sànniwaat xeer waajooju journaliste yi dafa am système bu ñuy doxee boo xam ne ñu ngi koy doxee mais baaxul. buñ xëyee war nañuy gis tey mën nañuy romb sax kuy gàmmu de wala kuy kuy conférence de billaay ñu romb ko fa dem seeti koo xamante ne nii saalam lañ koy fekk mu añ ba regg naan ndox mu seddam wax toj toj ñoom loolu lañ soxla selu loolu bu buñ dalalee plateau yi dañ seen ñi am na ñoo xam ne maanaam ñi jéem leen jaxase même bu fekkee ñoom ñaarang fa wala newul fa sax wala ku waxoon ci beneen émission ñu ne ko yow diw nee na la nangam nàngam fàttalil ko maanaam di di di taxaw di di di jaxase seetlu la loolu su loolu paasee euh, ni ñaar moo am ci àdduna mooy am xam-xam yaru am xam-xam mel neneen mel neneen terewul nga am xam-xam yaru terewul nga am xam-xam mais nit ki mën na am xam-xam ba pare mel neneen loo xam ne loo xam ne maanaam soxlawuñ pour mu dugg ci benn benn benn benn programme bu baax parce que l'islam gannaaw boo amee xam-xam daf la daf la ca tegal na nga am teggin teggin ci bépp fandu la nag ba ci garab yi muy faj nii sax maanaam même ci ci ci lax dër yu ba mu bëgg tudd sax dafa am nu mu koy tuddee mais lu amul sutura lu amul lu amul nu di baaxul te nag Ahmed mi mii pareegul de yoon la aw te yoon yoon yu mu jëm kilifa diine yi moom ñu ngi toog jàpp seen bopp ñoom kilifa diine Sénégal yi moom ñoom moom dafa mel ni gër rek attaqué benn mbir ñoom ñëpp maanaam génn wax ci comme ni nga xamante ni buñ yeneen yeneen yeneen réewi naar yi wala yeneen réewi arabisants yi buñ gisee lu leen naqari ku wax dara ci diine ji mu métti leen maanaam loolu moom dafa mel ni dafa daf xaw a dafa xaw a jafe te lu ci bari ñun liy xew ci suñ biir lay xewee suñ biir Sénégal gii fi lay xewee sëriñ sëriñ yu ndaw yi di ko def ñi taxaw war a mën a dénoncer loolu ñi taxaw seetaan ci doy na war lii raam ci ñag bi la jëm dañ seetaan nii di woyofal di barak yoon woo xam ne boroom ci torox la jëm yoonu torox lay aw yoon ba day neex yoon ba day neex lool lool lool lool ba nga jàpp ne yow kii yow ki nga xam ne yaa jaar ci yoon ba da nga ne ku jaaru ci yoon bi jaar la ci yoon bu baax kii loolu moo ko dal kii ni ku torox la dafa torox moo tax gis nga ñu seytaane gemb ñuy wax ci diine kenn xamul nu mu toll kii ci la bokk kii ci la bokk man de kii de dëgg dëgg yàlla neexul ba neexul mais ay waxam naqari na ma lool mit na ma lool awma ci pexe nag xanaa ma def li yàlla wax rek boo demee ba nga xam ne gis nga loo xam ne nii lu baaxul la neexul la bu fekkee mënoo ci lenn lu dul métti lu nga métti ko rek métti lu dong laa ci man waaye kii daal wax dëgg yàlla woo xam yi tax na yéenuwuma ko jàmm même bu fekkee waxuma ko itam wax dëgg yàlla waxam yii tax na man yéenuwuma ko jàmm waaye mere itam na trop nag sur internet yeeg yi euh, presse bi nga xam ne ñu ngi koy tàllal micro muy wax lu ko neex ñi koy jàllale mere naa leen lool lool lool lool parce que ay complice lañu kii daal naqaru jullit yi nga xam ne nii naqaru jullit Sénégal yi nga xam ne kii mu ngi leen ko teg yal na leen ko yàlla fajal waaw kii naxar yi mu teg jullit yi fii ci Sénégal ak tariixa bi mu bokk tariixa baay bi mu bokk naqar bi mu leen teg yàlla ñu ko yàlla fajal parce que ay waxam ëpp na lool lool lool lool muy wax ni ñëpp ko mën a wax amul ku mënul wax lu mel ni lu muy wax nii waaye dama leen dénk leen rek yéen Sénégalais yi bu dul borom làmmañ wu neex wi ngeen dégg mu wax neexaayu làmmañ wa rek ngeen jàpp na la mu wax dëgg la seytaane dëgg ñii la soxla ñii lay gemb ñi nga xam ne dañoo am xel mu neex ñoom lay gemb nag sol ci ñoom loo xam ne ni bokkul ak dëgg ñi koy wax nit ñi nag boo ko déggee jàpp na kii li may wax dëgg la fekk li muy wax dara du ci dëgg seytaane moo mel noonu seytaane amul soxla ci ko amul njëriñ borom bopp bu baax xel mu sell mu fees dell kooku la soxla pour jëfandikoo ko mën a sukkandiku kooku nax nit ñi man moom daal moom na neex daal ay waxam ay jëfam ma loolu daal dafa ko xam ne dafa arrogant daal ah, dafa dara dara dara dara ko neex wax waaw léegi nag Alxuraan la te Sénégal yi tamit dañoo am dañoo war a bàyyi waxam bu ñu waxee jug di war lii te bu ñu waxee ci Alxuraan kenn du jug kenn du ko kii nangam nangam loolu dañ ko war a daal waaw ñëpp la met daal moom amet si moom dafa doon ko mooy loolu daal mooy loolu daal 2019 fii la ko jàpp du ma ko ñu bëgg a dee kenn xamul fu man Sénégal daal ku ñëw ne ñu yaatal sa biir ah ne la Sénégalais nga li ngay wax enraciné na yi Sénégalais yi ñu bëgg lu bon boo wax lu bon fi mu toll nii ñëpp lay supporté naam am na mais nii nag ñu nii te journaliste yi tamit ñoom daamul daal polémique lañ bëgg daal di wax ci polémique ah daral kenn bu ko defee ñun la kii nangam bu ko defee yow boo ko tontee ah ñu dagg sa tont yooyu nga kii journaliste bi ñoom dañ leen war a. Eh, eh, duma de eh, journaliste ñoom tamit lañ war a wax ak ñoom. billahi dañoo war a wax ak ñoom waaye kenn amul daal moom moom mooy loolu daal dama ci dara su ma gisee ko ISRA sax ba ma romb ko man dama ko si moom moom loolu daal waaw ay jégalu